juróom-ñeent fukk ya ak juróom-ñeneent manuñ ko dafa jafe dañuy nattale ne jabar ji dana wasint doom benn doom bu góor lay indi ñu defar am na masala bu ñuy defaree noonu defaat beneen masala ne benn doom bu jigéen lay indi defaat masala ne dafay indi ñaari góor ñaari jigéen góor ak jigéen am na nuñ koy defee ba nga xam ne ñi bëgg seen alal léegi danañ mën a jot seen alal léegi te keneen kiy ñëw judd si ak nu mën a juddoo da dana fa fekk dana fa fekk wàllam waaye lu jafeñ la waaye pour bugg laa woon su fekkee ne xamuloo miraas ni ñuy def rek mooy nañ denc alal ji waaye bu boobaa yaa ngi tooñ ki nga xam ne àqam bi daf ko war a jot léegi te moom moom moom àqam daf ko war a jot saa yu ko soxla kon loolu mooy sartam ñaareel bi ñetteel bi mooy eh, ki ñu wax ne mooy war a doon lu tax mu war a doon loolu it dañ mooy ñetteeli ñetteeli charte bi nañu wóor ne ki dee dee na nañu wóor ne ki mi ki ki ki ki kii doon na si mu ngi doon dund nañu wóor li ko boolee kii li ko boolee kii mu war a doon na si bu doxul loolu kum neex rek nga jóg taxaw ne kii kat suma mbokk la ñoo bokk nangam ak nangam ñu jox la waaye soo ñëwee ne damay doon yow yaay kan suma jabar la suma jëkkër la wala suma jabar la naka ngeen sa yéeg luy jabar ak loolu yëpp ñu lijjanti ko wala suma baay la wala suma yaay la moo ma jur nangam nangam lépp ñu xam ko maanaam daal benn lay tax nga war a doon loolu danañ ci ñëw loolu moo ñu yóbbu ci beneen sabab li ñuy tuddee sabab maanaam lay tax nit di doon kon boobu jarul ñu di ci xuus kon ñu toxu ci yan sabab mooy tax euh, nit di doon na maanaam su nit ki deexee ñëpp la bokk maanaam dafa bari ay bokk am na ñoo xam ne baayam lañ yaayam brothers sisters euh, bàjjan nijaay ndey ju ndaw nangamati ñoo ñëpp ay bokk lañ waaw léegi ñii kan moo ci war a doon ak lu tax mu war a doon loolu mooy sabab moom lañuy tuddee sabab yi tax nit di doon sabab yi tax nit di doon nit soxna ayda ci ci ci sharia bam jeex ñett rek la benn bi mooy li tax nga bëgg a doon mooy euh, sëya dox suñ diggante moom moo moo tax ma ma ma ma eligible moo tax ma ma ma am àq pour mën a doon sëy moo doxoon suñ diggante loolu moo loolu ci ñaari boor lañ ciy doonantee jëkkër daf koy def jabaram jabar di ko def jëkkëram kon loolu mooy benn sabab bi beneen bi mooy nga ne dañoo bokk ci deret moo tax may doon na bokk ci deret kon bokk ci deret googu yaay dugg na baay dugg na euh, maam dugg na dégg nga doom dugg na brodas yi dugg nañ parce que benn nit ki nekk sa cosaan wala mu nekk sa banqaas wala mu nekk say car maanaam mbokk ni mu taxawee dafa mel ni garab banqaas la eh, dégg sa peer la ak banqaas ak i noonu la yàlla maanaam ni yàlla defaree garab noonu la defaree famille eh, eh, li suñ ne cosaan mooy peer mooy ndeeg baay mooy cosaanu nit ku ne suñ ne ay banqaas mooy ay doom suñ ne car yi mooy ñi nga xam ne dara dafa dox seen diggante ki ki gaañu waaye du mijjeet ñëw daay rek parce que doom dafa jóge ci baay daay rek baay dafa waa baay ak doom noonu la waaye soo ñëwee ci brodas ak ay oncle maanaam brodas su ma ne oncle fii nag nammut ki bokk ak sa yaay ndeeg baay wala ki bokk ak sa yaay baay waaye maa ngi namm ki bokk ak sa baay ndeeg baay wala ki bokk ak sa baay baay ngir ki bokk ak sa yaay kooku du dee doon na déedéet ki bokk ak sa yaay du la doon mukk ki bokk ak sa baay moo lay doon ci wàll googu yaay dong moo fay doon maanaam su ñëwee ci meen meen doon na amu fa meen kenn du doon ba yaay mooy doon waaye système ba sax du doon brodaam du du doon abadan waaye su ñëwee ci baay nag ñëppay doon wàllu baay. soxna Ayda foofu fit fu sew la waaw dafa sew te waaye lu am solo la xam nga lu tax soxna Ayda yàlla ku xarala la xam nga eh, su fekkoon ne meen dafay doon du du feyaa xam nga lu tax parce que waa meen ñu ngi am seen bàyyi bopp naka la ñuy doonee seen bàyyi bopp ba pare ñëwati di bokk ak ñeneen ñi seen baay kon ku nekk na doon baayam na do wala na doon geñoom baayam wala geño gi soo uh, loolu moo tax sharia tëralee ko noonu kon da nga gis ne eh, naka lañ ko tuddeeti da nga gis ne eh, eh, ñooñu ñooy ki wax ne deretama ci boole bunt yooyu rek lay mën a bokkee mooy dafay wax ne peer la mooy cosaan la wala mu ne banqaas ci banqaas yi laa bokk wala mu wax ne ci car yi laa bokk benn bu ci ne nag suñ demee ba mu dëggu euh, mën naa am da nga doon foofu it mën naa am ndax mën na am dañuy waa parce que dañuy iirante foofu itam maanaam dañ la ko jox rek mbëmbastal ci tàmbali bi waaye tey masalan ma jox la ci rek misaal donte àggaguñ ci let seene nit ki gaañu na bàyyi na papaam bàyyi na brodaam bi mu bokkandee ak bàyyi xanaa waxoon naa la fi ne dañuy doon bàyyi ñëw na damay doon ñu ne ko d'accord parce que yow yaa jur eh, broda bi mu bokk moom ndee bàyyi ñëw ñu ne ko déet mënoo ànd ak sa baay di doon sa broda kii moo ko jur a ànd ak moom di ko doon mukk su fi baay ji nekkutoon kay aha waaye ndem baay jàng fi yow dootoo laalati ma jox la ci beneen beneen misaal eh, waaye ngi nii dena bahi domon fi domam bu hau waji ñew taxaw ñu ne ko dama bugg doon lu dox sa digante ki mu ne moy suma bay ñu ne ko d'accord nañ keneen ñew ñu ne ko lu tax nga bugg a doon mu ne ma ngi mom ñoo bokk ndee ak ñu ne ko diit domam du fi ne domam bu gor du fi ne ba pare ngay and ak mom di doon bayam nak ngay donné sa bay yow ba pare ñew andat ak ki di di di doon di doon bayam loolu du fi mën a am demal loolu mooy euh, ñaareeli sabab bi euh, waaye fii nag bunt bu yaatu la boo xam ne fa la fa la mbir ma nekk si ci mirage euh, soo ñëwee beneen sabab bi ñetteeli sabab bi mooy li ñuy tuddee njaam yaa waaye boobu alhamdulilah amatul riq masalan tey nit dafa dee nga ñëw ne nit dafa dee nga ñëw ne damay doon nit dafa dee nga ñëw ne damay doon ñu ne lu tax nga ne parce que kii suma jaam la man maa ko jëndoon man maa ko jëndoon alalam jéem maa ko moom ñu ne la d'accord nañ kon ñetti sabab mooy tax nit di doon ñetti sabab mooy tax nit di doon benn bi mooy eh, eh, buum ak sëy moo doxoon suñ diggante beneen bi mooy dañoo bokk ci deret beneen bi mooy maako moom foofu ñetti ñetti sabab yaa nga soxna Ayda kon ñu dem nag ci bu mujj bi mooy li ñuy tuddee lan nag mooy disqualify nit ku ku waroon a ku qualify lan moo lay disqualify ba dootoo doon nati ah, dafay am hmm, ba pare ñu tere la ne doo doon ah, hmm. waaw maanaam xam nga wax nañ la fi ne eh, sabab yi tax nit war a doon mooy buum ak sëy walla deret wala moomeef kon kay loolu li nga li nga ci mën a dégg mooy saa yu loolu taxawee rek boroom dafay doon waaye nag am na charte bi mooy dafay fekk eh, eh, defuloo dara lu lay disqualifié benn bi mooy lii disqualifié nit itam ba du doon ñett lañ benn bi mooy euh, euh, naka lañ ko euh, naka lañ ko tuddee rey nit ku rey ki nga war a doon doo ko doon donte waroon nga ko doon parce que qualifié nga waaye mhm. dañ laa disqualifié bam des baay ak doom baay su reyoon doomam it dana ko doon ah. doom bu reyee baay nag déedéet hmm. baay mooy sababu ñëwu doom baay moom